dina ko may tey ci mu am loo xamante ne mm-hmm. dina mën a dugg assemblée nationale par pure force mm-hmm. on verra mm-hmm. voilà ñu euh, wéyali rek ak liste bi nga xamante ne moo di euh, takku wàllu euh, mënuñ lim yëpp donc quatre mm-hmm. rek la ñu jël nga xamante ne ñoo gën a mm-hmm. yi nga xamante ne ñoo ci nekk ñu daal di koy faram-fàcce wala sax daal di koy fësal takku wàllu mi nga xamante ne Macky Sall moo fa nekk tête bintu liste Fatou Bintou Ndiaye Mamadou Lamine Thiam Aïssata Tall mm-hmm. Fabinta Ndiaye aha Fabinta Ndiaye ak Mamadou Lamine Thiam Aïssata Tall Amadou euh, Mame Diop Thérèse Faye Mouhamadou Ngom Fatou Sow Abdou Mbow wala nafisatu Diallo Maguette Sy Sira Ndiaye euh, Moussa Sow Aminata Gueye Benoît Joseph Sambou Ramatoulaye euh, Signat Ba seydu ndey Mané Diop ak musaa Amadou Sow Abdoulaye Diagne voilà mu mel ni euh, daanaka ñoo ñooy euh, vingt premières personnes yi nga xamante ne ñoo bokk ci euh, liste bi di taxaw wàllu mais liste taxaw wàllu boobu nga xamante ne takku wàllu autant pour bi nga xamante ne Macky Sall Moustapha moo nekkoon tête de ba mu nekk coalition boo xamante ne c'est un peu particulière par rapport ak yeneen coalition yi parce que takku wàllu bi nga xamante ne wala sax coalition APR ak wàllu mu nga xamante ne PDS la dafa xaw a jaaxal ni ñu Moustapha parce que ñoom ñi nga xamante ne ñoo di ñaar ñoo nam sax ba fekkante dañu bëgg ne dañu bëgg a delluwaat famille euh, libérale bi mais famille libérale ba nga xamante ne euh, la xewoon seen diggante bëri na Moustapha euh, gis nañ ne ci élection yi ñu génn daanaka coow li doxoon na seen diggante ba ñu ne Amadou Ba dafa ger benn juge coow léegi li ni mel. Mm-hmm. diggante PDS ak APR gis nga ni mu demee daanaka Macky Sall moo tax Karim di jamono ji ma nga ca Qatar mënul hmm. dem ñu après ñaari coalition yooyu wala ñaari parti yooyu ñëwaat daje ne dañoo taxaw pour bokk li nga xamante ne moo di xeex nguur gi fi nekk wala bokk liggéey ngir am majorité fa nga xamante ne moo di assemblée nationale d'autant plus que Macky Sall moom nekk na nit koo xamante ne jamono ji mën nañ ne sénégalais mere nañ ko loolu est-ce que avantage bu mag a mag la ñu am pour ñu mën ci génn. xam nga takku wallu mooy la liste des contradictions mm-hmm. waaw parce que xam nga PDS ñoom tey jii PDS Mamadou Lamine Thiam mii nga xamante ne moom moo nekkoon seen président groupe parlementaire nga gis si Nafissatou Diallo bi nga xamante ne moo nekk ci biir ñoom ñëpp dañoo lànkoon ne du ñu bokk foo xamante ne Mimi Touré dafa bokk. Mm-hmm. parce que Mimi dafa bokkoon moo nekkoon ministre de la justice jamono ñuy génnee Karim Wade di ko bi. Mm-hmm. loolu moo taxoon ñu ne du ñu bokk ci kuréel boo xam ne Mimi dafa bokk. Mm-hmm. waaye léegi ñoom ñu ne woon du ñu bokk ci kuréel boo xam ne Mimi dafa bokk tey ji ñoo dem ànd ji ak koo xam ne moo nekkoon kilifa Mimi Touré di Macky Sall. contradiction boobu moo jiitu beneen contradiction bi ci am mooy Macky Sall mii ñu ne moom mooy tëdd liste tey jii mais Macky Sall amul lu mu tegul at yi ñu génn ñi nga xamante ne ñoo di waa parti démocratique sénégalais man dama ne ñaari way politique a ngi nii ba ci ñett ñoo xamante ne tey jii li leen gën a métti ci histoire politique Sénégal Macky Sall moo leen ko teg wala seen carrière politique mooy Karim Wade xalifa mhm. Sall Barthélémy Diaz seen carrière politique yu bëri gàllankoor si parce que su ma nee Khalifa Sall mooy xalifa Sall da ngay xool pratiquement année première euh, septennaaw Macky Sall bi mooy deux mille dix neuf année boobu Khalifa bu bokkoon mën na benn score bu honorable boo xamante ne mën na ko permettre mu préparer benn électorat pour mën a dellu si euh, deux mille vingt quatre mu mën a am dara. Mhm. mais malheureusement Macky da koo taxañ ba mu jekk mu teg ko ne de. Mhm. Barthélemy Dias boo xamante ne tey jii dina ko topp ba ci kanam dina ñëw ci bu ñëwee ba ci liste bi. Mhm. Euh, nga gis Karim Wade politique am carrière politique am fa la jaaree daal di effacé wu. Mhm. waaye léegi loolu lépp ngeen nangu ko pour lan parce que dañu bëgg ay nit ñu nekk suñu parti nekk député moo tax ñu nangu dugg ci biir liste bi dem. Mhm. te beneen contradiction bi nekkaat ci liste bi mooy. Mhm. Euh, soxna Amé. man dama ci gis Amadou Mame Diop. Amadou waaw Amadou Mame Diop Dagana daf ko daan gagné. gagné ko dugg fa gagné ko mais lan moo waral lan moo changé entre temps ba Amadou Mame Diop daaw Dagana ñëw toog fii di xëj di buuxante ci liste nationale bi kooku ñuy posé la. nga gisaat si ñeneen ñoo xamante dañ leen jàppoon seen base loolu ñëpp xamee nañ ko Aïssata Tall Sall par exemple à Podor. Podor. Mhm. ñëpp dañ daan wax naan Podor kat wax dëgg yàlla euh, ñoom ñoo ko moom ak yu ni mel ak yooyu lan moo xew entre ba ay Tall Sall na fa ñu ko podoor daal di ñëw di buuxante ci liste national bi. waa kër PDS seen ténor yëpp dañ leen a jéem a inscrit ci liste national yu bëri. kon léegi ndax ñoom dañoo amul yaakaar ne mënuñoo gagné fenn fenn ci biir Sénégal moo tax ñu dajaloo dem nekk nekk nañ koy waxate ay dawlaaxu ci biir ci biir national bi <laughs> waaw mais Thérèse Faye Diouf bii nii mhm. Thérèse Thérèse Faye bii nii moom meeru Diérère la mhm. mais boo nekkee maire nga wóor sa bopp pourquoi pas mu dem euh, buuxante ji foofu noonu xool ndax du fa am dara wala wala war a mën na ko fa am mhm. defu ko fa donc nga comprendre ne APR ñi ñu am si ay maire ñi ñu am ci ay responsable ñëpp ñu leen doon considérer wala di leen doon xoole comme ñu am base ñoom ñëpp dañoo nekk ay daw laaxu daw dugg si liste nationale bi léegi nag waa PDS ñoom dañoo def bu yomb bi moom ñoom seen porte parole ak seen ko jiite parti ba ak ñoom ñëpp dañoo dajaloo daal di ne bu rox dugg ci biir liste nationale ba loolu moo tax euh, ko euh, ko euh, nu ñu koy waxatee liste bi. Mm-hmm. dafay nekk liste boo xam ne ñi fi nekk ñëpp dañ ci dañ dañ ci dañ ci dajaloo pour di jouer seen survie à l' assemblée nationale seen survie la ñuy jéem a jouer politiquement pour ñu mën a am benn benn benn présence bi à l' assemblée nationale loolu moo tax di liste bi. Mm-hmm. boo ñëwee ci ki nga xamante ne moo ko jiite. moo di Macky Macky Macky Sall par exemple. Mm-hmm. mais xam nga man dama ne Macky Sall bi ñu jiital déjà bu ñëwee mën naa doon jafe-jafe si ñoom bu ñëwul mu gën a doonati jafe-jafe si ñoom. Mhm. Macky Sall bu ñëwee euh, qu'est-ce que les gens vont dire. dañ naan Macky Sall mii ngeen fi dàq il de cela quelques mois. Mhm. lan la fi Macky Sall mën a présenté waat ba bu ñëwee taxaw seen kanam. Mhm. ngeen ne Macky Sall mi ñu wàccoon il y a de cela quelques mois mhm. mooy question bi jiitu. beneen mbir bi am bi Macky ñëwul dañ naan waaye yéen Macky ngeen ne mooy seen tëddee ana ngi ñëw. te man góob ma ne Macky dina ñëw. neen dina ñëw Moussa non man góob ma Macky ñëw bu ma ko fi gisee nag dinaa ko gëm mais góobu ko ba léegi léegi tey jii maanaam ñaari ñaari ñaari profil yooyu yëpp ñu xoolee maanaam dañuy jéem a jouer ci li nga xamante ne moo di image yu Macky Sall pour nit ñi votel ñu bu Macky ñëwul ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen dugg ci musiba parce que bu Macky ñëwul kan mooy jiite seen délégation yi déjà ñi fa dajaloo ñëpp gisuma si kenn koo xam ne bu jógee jóg taxaw ñu ne diwa ngi ne le donc bu Macky ñëwul rek euh, jafe-jafe jiitu na bu Macky ñëwee campagne bu difficile l Macky Sall di mené mais est-ce que yaakaar naa non non mais ma continuer rek. Mm-hmm. tegaatoon ay tànkam fi ni day mm-hmm. campagne waxuma la jël risque ak yooyu sax mais mm-hmm. gox bu mu dugg dinañ ko yuuxoo dinañ ko topp dinañ ko dinañ ko topp ba mel ni kañ gu dugg ci biir marché. te loolu tey risque boobu dina mel ni euh, université ba. non dina mel ni risque boobu est-ce que Macky dina ko jël. loolu moo tax ma ne ñaari choix ñaari options yi boo ko jëlee amul benn boo xam ne dina arranger parti bi ñu doon gën. moo ñu jël seen i responsabilité jiital benn Amadou Mame Diop wala Abdou Mbow lu ñu am jël mhm. waaye Macky mi ñu def nii te xam ne Macky du ñëw wala Macky mi ñu jiital te xam ne bu ñu mhm. demee ba ñu ba gisuñu Macky mhm. mën na doon loo xam ne revers ba dajal maanaam nii daan yéen da di caaxaan parce que da ngeen def nii te gisuñu ko mais est-ce que yaakaaroon na Moustapha takku wàllu euh, bi nga xam ne jël lañ ko def tête de liste nekkul risque mere gi nga xamante askanu Sénégal mere nañ ko Macky Sall yaakaar naa ne giifagul xam nga nit bu la defee lu métti Moustapha nga nga gis gisoo ko mooy tane koo xamante def na la lu métti mm-hmm. chaque jour nga xëy di ko gis est-ce que Macky Sall bëggee na noonu li nga xamante ne moo di coalition bi bay tax mu jël risque boobu tamit di ñëw mais yow yaa ngi dégg démb rek benn benn soxna soo xamante ne ci mm-hmm. biir avion bi la amoon jafe-jafe ak ki nga xamante moo di Macky Sall mm-hmm. ñu daal libéré ko dañ koy libéré nag wax dëgg mm-hmm. yàlla parce que mm-hmm. Euh, liñ naan ku tëggoon ni ku bindoo ni tama ñu tëggee leen ñaari ñu tëggee ñaari boor Macky mm-hmm. Sall mënul yor réew ba génn te bañ ko ko sànni baat mm-hmm. dóoru ko agressé ko dafa wax ak moom ñu jokkalante ay baat mm-hmm. foofu arrestation mënu fa am parce que ne léegi maa ngi dégg nit ñi ko alerté que ni Maroc la a bàyyi parce que Camara la sant voilà Macky Macky Sall n'est plus le président de la République du Sénégal donc amul immunité boobu nga xamante ne président Bassirou Diomaye Faye moo koy am keneen ak keneen déedéet donc jokkalante baat dox na seen diggante nañu bàyyi ndaw si mu ñibbi moo gën Maroc nag nañ génn si ñu nekk. waaw moo gën. loolu benn parenthèse bu ñu doon def foofu la. nañ bàyyi ndaw si mu ñibbi jokkalante baat la Macky Sall nekkatul président ci amu fa dóorante amu fa dara amu fa. ñaari sénégalais yu dajale. merci seen yoon nekku si. Mhm. ñoo daje mu wax ko mu jox ko mu wax jo comme tey ji bu ñëwoon fii tamit. Mhm. te loolu benn exemple laa lay jox. Mhm. tey bu Macky Sall ñëw fi ne lay campagne dugg Sandaga mu dugg feneen nga xool am na ñoo xamante ni ba léegi ñu ngi toog ci exiger naan mhm. amnistie bi góom la seen biir xol yi waaye léegi ñooñu amnistie bi nekk góom seen biir xol yi te mhm. Macky Sall moo voté amnistie bi daal di jël avion bi daaw génn kooku nga yaakaar di nga ñëw ñoo la Macky Sall na jaar sa koñ nga taxaw di ko seetaan nga taxaw di ko seetaan ak garde yu mu munti am. je ne pense pas que dina jël risque boobu. moom logique pour jël du ko jël ma loolu moo tax ñi fi taxaw naan dina ñëw day def gàtt sa gàtt sa moo Sonko day def. lii noonu ay caaxaan la. léegi nag question bi ñuy posé ak lecture bi ñuy def mooy. Mhm. Macky bu ñëw lan lay jural listam. Mhm. wax naa ko léegi parce bu ñëwul. ñenn ñi dinañ ñi dañ doon tappale rek xamoon nañ ne Macky du ñëw ñu mm-hmm. daal di koy jiitu euh, def photon pour nit ñi daal ne waaw liste baa ngi noonu ñu bëgg Macky nañ ndax ak Macky mm-hmm. affaire yooyu noonu léegi bu ñu bu bu ñëwee wax naa léegi jafe-jafe yi nga xamante ne moo ko ciy fekk mm-hmm. moo tax ma ne ñaari option yëpp benn baaxu ci ñaari option yëpp benn baaxu ci option bi doon gën mooy bi nga xamante ne tey ji dañuy jël seen responsabilité ñoom ñi nga xamante ne ñooy ay kàngam te ñu ne am nañ ay base ñu dem seen base xeexi ji te bu ñu demoon xeexi ji seen base mhm. au moins dinañ dimbali ñi nga xam ne ñoo nekk ci liste nationale waaye bu euh, ñu ma la bu tombee ci man ma dugg nekk assemblée dafa yomb trop liste mhm. nationale campagne bi bu la neexee doo génn sa kër waaye bu dee département da dem porte à porte waxtaan waaw xam nga ne bu loolu cee rek mhm. euh, yàqu nga kon loolu moo tax ma ma ma ma jàpp ne. Mhm. Euh, liste boobu euh, Macky Sall mi ko jiite. Mhm. mën na doon benn handicap boo xamante ne. ci mhm. biir liste boobu. waaye ba tey dañuy yem ci li nga xamante ne moo di coalition takku wàllu bi nga xamante ne dañoo déposé ab recours euh, fële ca conseil constitutionnel ndax jàpp ne candidature ki nga xamante ne mooy di Ousmane Sonko warul jàll ndax dañ ko condamné mu ci diggante nga xamante ne moo di Mame Mbaye Niang waaye laaj bi samp mooy xanaa ñoom Moustapha dañoo fàtte li nga xamante ne moo di amnistie bi ndax amnistie bu amee moom lépp loo xam ne rek ñeel na mbirum condamnation day mel ni mës ta xew te yaakaar naa ne Macky Sall moo fi defoon euh, boobule euh, amnistie te ñoom ñi nga xam te ne tam ñoo farak Macky Sall ba tey ñoom ñoo taxaw <laughs> di bind recours. mais mais mais Ami xam nga lu reetaan lu. ci non non dafa affaire bee reetaan si recours bi Ami. <laughs> xam nga li ñu naan jikko borom pax. Mm-hmm. xam nga takk wàllu kan moo ko jiite. ñoom Macky ak ñooñu. ko jiite ak ñoom fa ne xam nga. Macky waaw. yi daa sàmm daa tàmm bi xeexee ni takkal leen ma tànk yi takkal leen ma loxo yi ñu xeex xam nga loolu tàmm. waaw mënatul ne nag. no dafa tàmm bi xeexee ni danaan takka leen ma loxo yi takkal leen ma tànk yi ñu xeex. Mhm. léegi nag dem na ba yàlla def ne ñii yëg si nañu au pouvoir mu ne léegi comme ministre bi jàll na dem na conseil conseil takkal leen ma tànk yi takkal leen ma loxo yi ma mhm. xeex ak ñoom Mhm. te xamuñu ne jamonoy Macky Sall wéy na xam nga habitude la. Mhm. ñoom noonu lañ noonu lañ baaxoo di xeexee même asa conseil constitutionnel bee passé bi bi bu Bassirou Diomaye Faye bi jàllee. Mhm. dugaloon nañu recours Amadou Ba mi ne noonu Bassirou Diomaye warul mën a bokk parce que dafa bokk ci parti boo xam ne dañ koo tas yu ni mel yooyu noonu. tàmm laago la.